dañu sentir gani, amna lo xamni sax Sénégal min nañu ko moy ki nga xamni opposition la bok di attaquer directement le président de la République du Sénégal mais buñ ñu ba sentir na ay ño xam dañu né coalition Benno bok Yaakaar la bok ba paré di tirer ci kaw président jot na nag ñu waxtaan ak sunu biir. té li ngay tirer buñ la ko waxee sa intérêt personnel kese motax tax doone président doxalul réew mi je pense que réew mi mo pour doole coalition bi mo pour doole parti bi.

lii ñuy def nii tey Ceesuwaa yi la bëgg yëpp d'accord nañu si di di la jàppale parce que ñun ñoo waroon wax ni yow yaay mbër bu baax bi tey nag du ñu taxaw kenn di xajamal cerewu président de la république loolu moom suñu combat la à partir maintenant dajewuñu rek pour ñibbi dañu am fiche boo xam ni def nañ ci feuille de yi ak ñi nga xam ni woote nañ ne dugal leen ma ci on va créer une panel whatsapp boo xam ni dinañ ci jàllale suñuy message di ci daje ay réunion à partir maintenant du nangu benn saay-saay wala ku tekkiwul dara ci Sénégal ne damay xajamal cerewu président la république loolu ñun ñooy ñu taxaw ne doo ko fi amee puisque sénégalais yi ñoo ko wóolu fal ko ñun ñoo campagne oon fal ko jekkul rafetul ñu taxaw fii tey à sept mois bi ñu ko falee nit ngi taxaw naan gisuma ci sama bopp réew mi la ñu bëgg mu gis boppam ci nguuru Macky Sall sénégalais yi gis seen bopp te ñu ngi ciy gis seen bopp kon alhamdulilahi rabil alamin ñun ñi ngi gën a soutenir président wax ko ko jox lañ la carte blanche ñun coalition Benno Bokk Yaakaar bu département de Thiès surtout commune bi nga xam ni enjeu politique bi fi la ëppee ñu ñi la àndaloon tey ñu ngi ànd ak yow ba tey jox nañ la carte blanche boo nee tooy ne dañu wax xepp nga ne wow na ñu ne kongu parce que loolu mooy suñu devoir gisuñu nga def lenn loo xam ne day naxasal réew mi kon dama jàpp ne maa ngi lancé appel nag ndawu APR yi nga xam ni moom laa bokk nañ delloo si seeni xel te xam ni ki ñu fal réew mi ñoo ko fal du parti moo ko fal mi ngi ci liggéey bi

ku taxaw wax ni affaire bi doxul lañ lay wax foo ko teg doo expliquer sama leader Macky Sall daf ko changé fi mu nekkoon loolu du argument nañu arrêté te xam ni li am solo mooy Sénégal dox te Sénégal mi ngi dox.